Mbacke Sakho ñu ngi lay nuyu te di la seet te di ñaan suñu boroom defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin bi xurmati maulana rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam <clears throat> Moustapha eh, sa jarbaat sama jarbaat yónnee na ma audio bi nga ko yónnee ne naa ko déglu Euh, fekk na sax am na yu ma déggoon ci yeneen i groupe euh, tabaarakallahu doon naa ngéeju lool yi ma dégg ci audio bi mu bañ a jóge ci benn jullit ci àdduna rawatina ci ku ñuy jege ci askan comme yow eh, ni ma doon ngéejoo it eh, lenn loo xam ne dana jóge ci man ci luy eh, naqari jaam bañ a am rawatina jaam ba jullit rawatina muy mbokk maanaa mbokk gannaaw mbokk jullit muy mbokku deret waaye nag yonentu sallallahu alayhi wa sallam dafay wax ne biir la sama borom mi di wax ne yàlla ko ñoo gën leen gërëmloo wa rasuluhu axaqu an yurduhu in kaanu buñ la déggee <clears throat> ngay wax ci wàllu tadabbur ak tafakkur ak jëfandikoo xel ni ko sama borom tabaraka wa taala ne borom xel yi lay waxal waaye bu ñu fàtte mag yow ne li njëkk rot ci alquran mooy ndigalu jàng iqra te jàng nag du mën a amee ludul ca ña xam fànn gu nekk ña ca am ixtisaas muy muy spécialité ca lañ war a jàngee fànn googee sama borom ne fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamun bu ma dégloo nag li nga ma yónnee dafay feeñ lool ne ahlu dhikr muy ñam specialité ci fànn gile yow bokkuloo ci non bokkuloo ci waaye dafay feeñ lool it ne jàngewoo ci ñooñee lu tax ñu wax loolu mooy jooxe gi ngay jooxe alxuraan muy jàngin wi ci boppam dafa bari ay fot lool sharxa gi wane sa ñàkk xereñee lugal arabiya moo xam qawaid lugawiya la wala qawaid naxwiya loolu nag daf may delloo ci laye ji nga xam ne moom nga tudd tegtaloo ko ci suratul israa wala taqufu ma laysa laka bihi ilm laay jooju damay foog ne dama gis ne euh, du lay ñeel la waaye lay waral la maanaam laay ji dafay daanu ci sa kaw lu tax mooy ñàkk a goreel xam-xamu alquran ak ñàkk goreel luxal arabiya gi nga xam ne ci la yàlla wàcce alquran moo tax bi ma ko dégg bi ma dégloo euh, dëgg-dëgg li nga wax ne ku ko dégg loo doon jëfandikoo dang ca sikk wallahi wal quraanil azim lii ñuul ci we tàbbiwut ci sama xol ci sikk xam nga lu ma def kay jàq njaax jaax léegi li ko waral nag mooy jege ñaaleeg diine ak jege ñaaleeg ban gi ñu yàlla boole moo taxoon ma doon géeju lool lu mel ni du dal ci sa kaw ba nga di ko génnee amma sikk nag fa hayhaata hayhaata loolu lu sorik am la ndax walillahi alhamdu nahnu ala bayinati min amrina mbir mi du loo xam ne dafa am lenn lu ñu ci lant alhamdulilahi rabbil alamin wax yi nga jottali ko yëpp nag duut lu bees sax ci suñu nopp lu ñu gëstu la xam ko xamit gongeekuwaay wax yi le moo xam gongeekuwaayu jamono ji la wala gongeekuwaayu jamono ju yàgg ja ndax am na tur wu ñuy tudd muy alquraaniyuun moo xam alquraaniyuun bil xaddi al aala wala bil xadd al adna muy ñëcca ëpp lool ak ñëcca xawa amuk sago te daanaka ñoom ñëpp a yem ngir lan ngir dañoo dàq sunna yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam si nga xam ne ni alquran nekkee waxyu la nekkee waxyu loolu nag ni ci boroom xam-xam yu njëkk yi taxawee woon ba fay ay woowule ku mel ni Shafii ci téeréem boobule ar bi nga xamee ne lenn ci xawaarij ak lenn ci mu'tazila indi nañu ide yooyu ba daanaka amuk ak taxaw ci jamono yu mujj yi rawatina ci jamono colonisation ci dix-neuvième dix-neuvième siècle gis nañ ku mel ni Ahmad Khan mu dund année mille huit cent yi mi ngi gaañu mille huit cent quatre-vingt-dix-huit ak euh, musiba yamu ca def gannaaw bu mu taxawee ci révolution nangam sangam ak anglais yi gannaaw ga ku mel ni xulaamu nabi xulaamu nabi moom la ñuy wax abdullahi eh, jëkrala jëkralaw yi mu nga ca ma nga gaañu ca at mën na mu tuddati 1914 moom mën nañoo wax ni moo njëkk a fondement xaraka alquraniya en 1902 ci njëlbeenu vingtième siècle vingtième siècle ca Lahore Pakistan moom nag bokk na ci mu doon yi nga xam ne ñoom dañoo gis ne bépp détail ci diine rek mënees na ko jële ci alxuraan ak juz'iyat moo xam juz'u ba nu mën a doon ci juz'iyat ya ni mu mel ni nga xamee ne noon ngeen waxee ci wàllu julleeg yu mel noonu te loolu nag di njuumte lu rëy rëy rëy rëy ndax ku xool alquran xam ne alquran dustuur am la waaye faram-fàcce ya ak qawaaniin ya al juziya yaa ngi koy fekk ci as sunna sharifa loolu mooy li nga xam ne moo sax lu dul loolu saxut te danañ ko leeral ci kanam incha allahu taala gannaaw xulaamu nabi muy abdullahi moomu feeñ na ca charqul hind ku ñuy wax muhibbul xaq azim abadi mu fonde fonde foofule benn mouvement coranique moom di ko défendre ba ci mujjuk année cinquante yi ci siècle euh, vingtième siècle gannaaw ga ahmaduddin feeñ fonde e, jamaa boobu tudd umma muslima mu ngi ko defar année 1926 moom mi ngi fi jóge 1936 moom bokk na ci yi nga xam ne moom la doon attaqué mooy nizaamul irs nizaamul irs bi nga xam ne dañ ko istinaat ci sunna mu jàpp ne wàllu ndono lépp alquran la sunna amul ca yoon te sunna nag ni alquran nekkee waxyu la nekkee waxyu du wuteeg alquran mukk gannaaw ga alxaafid aslam <clears throat> na waaw mi ngi fi jógee 1955 1955 la fi joge mu moom it dooleel xaraka boobu nga xam ne moo doon def rafdu nidaamil irth alqaima ala sunna waaye moom mu gën a sax euh, xaabaabal ci jéem a dajji ilmu rijaal ak ilmu musalaxil xadiis ci façon boo xam ne kenn gënu ko caa ñàkk kersa gannaaw ga Ghulam Ahmed euh, ñëw Ghulam Ahmed moom mën nañu wax ne mooy mu alliful xaraka al quraaniya moom lañ koy woowee sax euh, continuer ci loolu ca chibhul xaaral hindiya mën ngaa wax ne lolu ci jamono ju mu jiji li ko dalee mille huit nangam jëm ba mille neuf nangam comme mouvement ci diggante Inde Pakistan nga ko daan fekk ci biir monde arab bi nag am na ci ay jëmm yu ca feeñ euh, ku mel ni Mohamed Abdou dem na am na ci ay yenn xalaat yoo xam ne yu doy waar la woon waaye ki ci gën a fës ci jamono ju mujj ji muy Ahmed Subhi Mansour nga xam ne mi ngi fii ci ñun aux États-Unis d'Amérique gannaaw Euh, bu mu amee ay jafe-jafe mu exilé ñëw fii doon jàngale defe naa fële ci Harvard léegi ne ubbi na markazam euh, di fa tasaare xalaat yu mel nii nga xam ne kenn jiituwu ko ca wala ñi ko ci jiitu mooy ñi bokk ak moom pas-pas te it mu am ci yu bari yum ci euh, yokk moom dafa def kufru bokk na ci xalaatam yu euh, doy waar yooyu moom kufru daf ko def ñaari xaaju kéeféer kufru suluki ak kufru aqaidi salaatu ala nabi tamit mu ne du niñ koy defee nee na mooy nga roy bi rek sallallahu alayhi wa sallam mu ne yonent bi ñuy wax ne ummi yu la tamit nekkutoon ummi yu yonent bi dafa daan jàng di bind mu ne salaatul wusta gi ñëw ci alquran duut jëmmi julli waaye mooy julli goo xam ne rek dana meññeel jëf ju baax ak def takuwa ci jaam bi tashahud muy taaye it mu di def taaye di wax ashhadu anna muhammadan rasulullah ci biir julli nee na bokkaale la kenn waru caa tudd yonent bi sallallahu alayhi wasallam naka noonu salaatul ibrahimiya ci tashahud nee na bokkaale la naka noonu turu yonent bi ñuy tudd ci noddu gi nee na waru ci am bokkaale la naka noonu yonentu sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moo gën ci li yàlla bind nee na loolu amut naka noonu nee na aj du loo xam ne ci weeru tabaski rek lañ ko war a def waaye yeneen weer yu xurum yi mën nañ ko cee def naka noonu nee na jullit bu jigéen mën naa sëy ak bu góor comme mën naa sëy ak bu góor yooyu yëpp di ay xuraafaat ak ay nar yoo xam ne mouvement bii di quraan yu yoona ñoo ko dur bu ñu xoolee sa euh, audio bi nag xëy na dégluwuñu yëpp waaye yi nga xam ne déglu nañ leen yi nga ci wax yëpp dafay delluwaat ci ñii malgré que Moustapha nee na ma wax nga ko ne sama borom moo ko xamal ñu bàyyi loolu bañ ko commenté waaye sama borom kim xam kim nga xam ne moom la xamal te wax ko ñu topp ko wax ñu ñu topp ko mooy yonent bi sallallahu alayhi euh, ma continuer am na ay laaj yu ma laaj benn bi boo bëgg a séparer liñ yonent bi jàngal sallallahu alayhi wa sallam ci sunnaam ak lim ñu jàngal muy alquran ndax di nga mën a am foo génne lu tax ma wax loolu mooy alquran kan moo la wax ne ci yàlla la jóge du yonent bi tontu li ahankay yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam kan moo jëlee alquran ci yonent bi toxal ko mu agsi ci ñun du saxaaba yi tontu li mooy mooy ahan kay saxaaba la léegi saxaaba yooyu jëlee alquran ci yonent bi ne yonent bi moo ne lii yàllaa ma ko jox mooy alquran ne nañ ko topp ñoom ci seen bopp ñoo indi sunna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu wax li ne nañ ko def léegi ñooñu boo leen weddee ci alquran boo leen weddee ci sunna pardon naka nga leen mën a dëggalee ci alquran yow boo jàppee ne sunna duut lu ñu war a topp te ñoom ñu jëlee ci yonent ne dañ ko war a topp nan ngay mën a gëmee ni alquran lu ñu war a topp la te ñi la indil sunna wax la ci liñ la ci wax ñoo la indil alquran wax la ci liñ la ci wax ñooñ ci seen boppit ñoo solo ci yonent bi sallallahu alayhi naka la ñuy jullee ak lan lañ cay def ak lan lañ cay wax te ma xamal la ne la tawaatur bi julli gi yonent bi daan julli ak nam mu daan julli ak lam ca daan wax ni mu tasaarooyee ci saxaaba yi raw na ni alquran yépp ye ci saxaaba yi ndax wér na ne alquran bi fi yonent bi di joge saxaaba yépp mokkal luñ ko ñi ëpp ci saxaaba yi mokkalu ñoon alxuraan donte ku nekk am nga loo mokkaloon ña ko ca mokkaloon ñu néew lañ boo leen comparé nombre saxaaba yi waaye ni yonent bi daan jullee moom sallallahu alayhi wa saxaaba yi yëpp ñoo ko solo jëm ci moom kon alxuraan ci yàlla la jógee niñ ci jote ñun gënta wér niñ jote ci ne yonent bi sallallahu alayhi wa nii la daan jullee yonent bi sallallahu alayhi amul ku jëlee ci moom ci lu jege walla ci lu sori ne ni nga xamee ne moom la ñuy jullee nii wuute naag ni yonent bi daan jullee sallallahu alayhi gannaaw bu mu ñëwee Madina ndax yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo wàccee ci moom julli ci Makka ñaari rakk ñaari rakk bi mu ñëwee Madina sama borom def ko ñeenti rakk ñeenti rakk ba mu des suba ak timis te dinañ ci ñëw ci xadis yi nga xam ne saxal nañ loolu te boo weddee xadis rek rek sànnil alquran ndax ñi la ne alxuraan tu bee ko wax ñoo la ne xadis yi yonentu ko wax ñi la ne alxuraan yàlla ko wàccee ci yonentu bi ñoo ne la xadis yi yonentu sallallahu moo jëlee waxyu gi ci yàlla digal ñu ci nangam ak sàngam alxuraan sama borom bi ko wàccee ci yonentu bi wax nga sànq wax nga ci audio bi ma déglu ne yonent bi jotal rek ko war dëgg la laaya wér na de waaye dégg gi dégg juum la ndax yàlla mi wax yonent bi na jotal te jotal rek a ko war moo wax yonent bi ne ma wàccee ci alxuraan ngir nga leeralal ko nit ñi wa anzalna ilayka dhikra li tubayyina linnaasi ma nuzzila ilayhim ca suratu nahl kon wa ma ala rasuli illa al balaaxu du tënkub tënk waaye tënkub réyal la gis nga boo dajalewut nusuus yi texte yi doo mos a yegg ci dégg gu wér tënk gi fii mi ngi mel ni rek yàlla lim ne wa an tushriku billahi ma lam bihi sultaanan yàlla tere na leen ngeen bokkaale ko ci lum wàccewut ak la aw ndax loolu dafay firi ne yàlla am na lum wàccee aw lay ci bokkaale wala mën nañ koo bokkaale si lum wàccee aw lay déedéet dafay wane ne yàlla kenn du ko bokkaale bu tuddee lum wàccewul aw lay dafay gën a leeral rek ne loolu amut wenn aw lay wu ca wàcc waaye bu ñu xoolee zaahirul aaya ji dafay mel ni am na lum wàccee aw lay woon wala mën nañ ko bokkaale ci lu mu awlay walla lay fi muy wax jullit yi ne buñ forcé seen jébéer yi ñu njaalow ndem bëgg nañu ak sangewu ndax loolu dafay wane ne suñ bëggut ak sangewu mën nañ leen a forcé déedéet wala tukrihu alal ala albigaai in aratna taxassunan yàlla ba muy wax ñi araam ci góor góor ñi ñi araam ci ñoom ñu takk leen wax na naka la tuddati ca suratu nisaay xurimat aleykum xurimat aleykum ummahatukum wa banatukum wa axawatukum wa ammatukum wa xaalatukum wa banatu laxi wa banatu luxti wa ummahatukum allati ardacnakum wa axawatukum min arradaaca wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum muy seen doomi jiitle yi allaati fi xujurikum baatu allaati wala ñaari baat yooy di allaati fi xujurikum ndax dafay wane ne bu fekkee ne rabaib bi newuñ suñ kër mën nañ leen a takk déedéet loolu nag ku déggul alquran xamuloo qawaid arabiya doo mën a xam loolu te balaax ci boppam gi nga xam ne moom la ñu wax yonent bi mu def ko tabiin daf caa bokk mooy ak leeral ndax salaatu ci luxa du firi ni julli comme niñ koy defee salaatu ci luxa ñaan lay firi bi dalili wa salli alayhim ñaanal leen pour ñu xam nag nan lañ koy doxalee bu fekkee ne dafa fir wuteeg li muy ci luxa ni ko quraan yu yoon yu bari sax di waxee te buñ yegee ci barab yu mel ni cang ni salaatu di firee ñaan ci luxa noon lay firee leneen loola nag duñ ko xam mukk lu dul sama borom leeralalu ñu ko te kim digal mu leeralal ñu ko mooy yonantu bi sallallahu alayhi ba li linnasi linnaasi yonantu bi sallallahu alayhi leeral julli niñ koy defee ak limu rakkaa yi ca makkatal mukarrama muy ñaar ba mu ñëwee madina muy ñeent ba des suba ak timis te sama borom kat moo ne yonent bi du def ci xalaatu boppam in huwa illa waxyun yuuxa te loolu dégg naa nga ne amul kenn ku la mën a indil preuve yooyu Mustapha sax wan na ma xadis bi nga ko yónnee ne julli ñeenti rakka la ñaari rakka la ne ñu dolli ca gannaaw ga waaye lu tax indi woo ahadis ba mu mat xëy na danga ngaa amut ahadis ba ya ba mu mat bu ñu demee ci jullik suba nañ dem ci saxiixu muslim ibnu abbas dana wax ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam jullik suba rakk bu njëkk ba daan ci daf ci daan jàng xuulu daan na wa ma unzila ilayna ñaareel ba daan na ci jàng eh, naka la eh, allahuma salli ala rasulillahi sallallahu alayhi mu ne ñaari rakkay suba daan na ci jàng xuulu amanna billahi wa ma unzila ilayna Eh, ak amanna billahi wa ba ca amanna billahi wa shahad bi anna muslimun eh, aw kama qaala kaana yaqra'u fi rak'atay al-fajri fi al-ula minhuma okay qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa fi al-akhirati minhuma amanna billahi wa shahad bi anna muslimun raka bu njëkk ba daf ca la jàng qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ba laaya ja jeex ci suratul baqara ñaareel ba mu ne dana ca daan jàng amanna billahi wa shad bi anna muslimun hadis jàng ci muslim bu dee jullik tisbaar jullik suba amuñ ci problème ñaari rakk la ñu ñëw ci jullik tisbaar hadisu buxaari anas ibnu malik nee na sallaytu zuhra maa annabiyi sallallahu arbaan julli naa tisbaar ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Madina mu julli ko ñeenti rakaa ci xadisu Abu Saïd al mu ne yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama daf daan taxaw ci jullik tisbaar ñaari rakka yu njëkk yi rakka bu nekk dana ca taxaw kemtalaayu boo doon jàng kemtalaayu jàngu fanweeri laaya maanaam dana ca taxaw taxawaayu boo xam ne boo mën nga caa jàng fanweeri laaya ñaari rakka yu njëkk yi mu ne ci ñaari rakka yu mujj yi mu jàng ca gen wàllu loolu kon leer na la ne am na ñaari rakka yu njëkk yu muy jàng loo xam ne boo ca doon julli da nga ca boo doon jàng alquran dana tolloog fanweeri laaya kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaquumu fi zuhri fi al aya wa fi l uxrayayni bi nisfi dhalik mu wa kaana yaquumu fi l asri fi rakaatayni ulayayni qadra xamsa asharata ayatan wa fil uxrayayni qadra nisfi dhalika bu dee tàkkusaan ñaari rakka yu njëkk yi lu tolloog fukki laaya ak juróom ñaari rakka yu mujj yi rakka bu ne lu tolloog genn ñaari rakka yu njëkk yi tàkkusaan rakka bu ne lu tolloog fukki laaya ak juróom ñaari rakka yu mujj tàkkusaan rakka ne lu tolloog genn wàll ga ibnu xusayn ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam mos naa julli tàkkusaan sëlmal ca ñetteelu rakk ba jog dugg ci biir këram benn waay dab ko muy dul yadayn ndax fi yadayhi tuul daal di wax yonent bi lim def yonent bi génn mer di biri di di di di di biri euh, nuñ koy waxee di diri làmbaayam ba mu agsee laajte ndax li waa ji wax dëgg la ñu ne ko waaw dëgg la yonentu ba yokk ca beneen rakka ba pare su jootal ko ñaari su joot euh, gannaaw ga mu soog a sëlmal kon loolu wane ne ne tisbaar ak takkusaan yëpp yonent bi sallallahu alayhi ñeenti rakka la ko doon julli ci Madina jullik timis ñëw na ci xadisu Buxaari xadis ji ma tudd léegi mi ngi ci muslim ji ñëw na ci xadisu Buxaari Abdullahi ibnu Umar ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis naa ko ida ajalahu sayra yu axiru almagriba fa yusalliha thalathan ñetti rakk summa yusallim bu dee julli gee ñëw na ci musnad imaamu ahmad nday aïchatu ne kaana awalu mafturida ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam alsalaa rakaataani rakaataani illa almaghriba fa innaha kaanat mu ne li njëkk farataal ci yonentu bi sallallahu alayhi ci julli mooy ñaari rakka ñaari rakka ba des timis ñetti rakka la mu continue moom day Aïcha ne thumma atamma allahu zuhra wal asra wal isha al axirata arbaan fi lxadari wa aqarra salata ala fardiha al awali fi safari mu ne gannaaw ga yàlla mottali tisbaar mottali tàkkusaan mottali gee ñeenti rakka bu dee tukki bu dee tukki bu buñ nee ci euh, fiñ dëkk bu tukki amee nag ñu yóbbuwaat julli ca cosaanam moo tax bu aji julli ji julli ñeenti rakka su tukkee julli ñaari rakka loolu it mooy dëppoog xadisu Aïcha jooju nga xam ne yónnee nga ko Mustapha te xadis jàng ca Buxaari mu ne yàlla ba mu farataalee julli daf ko def muy ñaari rakka ñaari rakka moo xam ci teew la wala ci tukki gannaaw ga ñu saxal jullik tukki ci ñaari rakka dolli ci jullik teew lii amut lenn loo xam ne lu keneen def la lu dul yonent bi sallallahu moo ko def saxaabaam yépp fekkee ko nettali ko moom mi nga xam ne moom la yàlla wàccee ci moom alquran wax ko mu wax ñu ni ñuy jullee eh, fi may jeexalee mooy li nga wax ne sab'ul mathani bokkul ak sab'an min al mathani kooku moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe naa moom nga gisut lim ci wax wala moom ngay weddi nee nga ñu bàyyi kutubu tafsir yëpp nañ bàyyi kutubu tafsir yëpp dem ci li yonent bi wax yonentu sallallahu alayhi wa ñaari xadis laala ci indil yoo xam ne ñu ngi ci Buxaari benn bi Abu Saïd dafa ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam daf ma romb fekk maa ngi julli mu wooma dikkaluma ko ba ma paree julli ma dem ma dem maanaam ma wuyu ji ko mu ne ma lu tax wuyu si wuloo ma bi ma la woowee ma ne ko dama doon julli yonentu ne ko xanaa yàlla waxul ne yaa ayuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum wuyu leen yonentu bi yéen ñi gëm yàlla su leen wuyu leen yàlla ak yonentam yéen ñi gëm yàlla su leen woowee daal ne ko dama la xanaa duma la xamal ala uallimuka xanaa duma la xamal azama suratin fi lqur'ani saar wi gën a màgg ci alqur'an balaa ma qabla an axruja min al masjidi balaa maa génn jàkka ji mu ne ko ahankay nee na bi yonent bi demee bay bëgg a génn ma fàttali ko ma fàttali ko fa dahaba annabiyu sallallahu alayhi wa sallam li yaxruja fa zakartuhu fa qaala mu yonent bi ne ma alhamdulillahi rabbil alamin hiya assabu almahani walquranu alazim alladi utituhu mu ne ko saaru alhamdulillahi rabbil alamina muy fatiha mooy sab'ul mathani kon yonent bi moom tudd na as-sab'ul mathani nee nga nag bokkul ak sab'an min al mathani te loolu dinañ la nangul ngant ndax lugal arabiya goreeloo ko uh, tamit goreeloo mu ne wal qur'anul azim mu ne fatiha mooy sab'ul mathani mooy ju màgg ji alladi ji nga xam ne uutiitu joxeef na ma ko xam nga yàlla daf ne jox naa la sabaan min al mathani wal quran nga foog ne nag euh, atf ga mën na ko taqale loolu it boo duggoon ci alquran man kaana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaila gis nga tudd na ba pare atif ca jibril ak mikaayil te pourtant ñoom ci malaaka yi lañ bokk moo tax mën nga atif dara dégg nga loo xam ne lan atif ci la bokk mu ngi mel ni tanazzalul malaikatu war ruuxu fiha ci ñu ne ruuxu mooy malaaka la waaye fële la gën a leere ca suratul baqarati kon fatiha mën naa nekk sab'ul mathani mën a nekk qur'anul azim te looloo am ndax yonentu bi ma ko wax sallallahu alayhi wa sallam fatiha lii mooy Qur'an fatiha ci alquran la bokk ba pare fatiha moo tënk alquran moo tax yonentu ne moom mooy sabul mathani mooy Qur'anul azim moo tax dégg boobu nga am ci wérut balluloo gi nga ci balluloo jullit wérut julli soxluwuñ koo balluloo ndax yonent bi leeralal na ko kon nas mi ngi nii ne fatiha mooy sabul mathani mooy alquranul azim beneen xadis ba abu hurayrata moo ko solo ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ummul qur'ani hiya sab'ul mathani wal qur'anul azim ndeyu alquran mooy as-sab'ul mathani te mooy alquranul eh, naa yëf yi mu ngi bëgg a gudd ñu allah di ñaan yàlla eh, boo dégloo lii nga xalaat ci bu baax a baax ñu lay laaye biir nga génn ci yooyu le nga xam ne euh, bidaa la mouvement boobu ñuy wax quraan yi yoon ñoo ko sos niñ ko leeralee te dara du lu ca xam li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi nekkoon saxaaba mi nekk ci gannaaw gi xeet wi nekk ci loolu mooy dëgg dégg naa sa nga ne ci ñooñ chia chia ñaari rakka ñoom la ñuy julli waaye loolu amut gannaaw buñ la leeralee ne chia dañoo bëri kuréel man ci sama bopp bind naa ci ba may bind ci siratu ali ibn abi talib karamallahu wajhahu waaye boo toppee seen téere yi di nga gis ne wax jooju nga wax duut loo xam ne lu wér la chi jàkkay chia ngi fii New York ak feneen di julli ñeenti rakk tisbaar ak takkusaan donte seeni julli am na ay wuute ante seeni kuréel it am nañu ay wuute wax jooju duur ju ñu uh, musallam uh, ñu ngi lay woo daal ci gën a gëstu uh, yokk àlluwa ji te bañ a topp li may tuddee cheikh google wala cheikh youtube jànge alquran ca jàngu ba waaye jànge koy ca ña ko goreel ci xam wala ña ca goreelu xam ndax alquran kenn du ko pekk waaye ak ahlu dhikri mooy ña ca am ixtisaas yàlla nañ ci yàlla boole wala ñu defal dégg wala ñu defal topp wala ñu topploo sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala ñu topploo yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy yoonu alquran hada wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sa mbokk muhammad muntaqa saaxo assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ali malaadu naas fi diinin wa dunya badulun duna manin bi nawaali shujaaun fi ixtiyaadin wa ixtinaamin ila al islaami ma tarkil muhaali jawaadun ICFA Institute